an coow laa nga ca magistrature ba fi mu ne turbine yéen a kaay naan maan affectation ci magistrature bi kan ak kan lan fay tabb fi nag mooy yeexal chamboulement bi taxawal après conseil mën naa tax nag ba jiixi jaaxadu am ci affectation magistrat yi mise en compétition yi nekk nag saafara gi gën ngir ñenn ñoo xam ne buñ leen affecté dañ cay sànni baat wala it mer ca ba futt laaj ba samp tey moom moo di ndax conseil supérieur bu magistrature bi taxawaayam mën naa tax ñu woote ci réew mi tribune naan ma bul dem ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru concert bu casserole moo am ni ki démb bu njëkk ci nguur Jomaay UCAD ci boppam moo ko tàmbali 18 heures lañ ko tàmbali étudiants yi di naqarlu ndox mi ñuy ñàkk waaye tam wi fi nga xam ne amu fa ak lëndëm giñ dëkkee tribune naan man bul dem ba tey desal ma xamal la ni ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards ca eurobond kànga mu gëm sa bopp yi nag ñu ngi cay sàkku ab ubbi teeg enquête parlementaire audit ci fonds commun yi nga xam ne ñu ngi koy jébbal fonctionnaire yu impôt domaine yi ñu sàkku ko gannaaw génnu bugaan ga ñoom kàngamu gëm sa bopp yi day ña ca wax ja ñoom yi dal ci kaw république bu inspecteur des impôts yi ne réew mi ñi ngi ko tàbbal ci ñoo ne daanaka par par loola ñu tënk nag administration bi source a naan kon fi mu ne ña ngay dal ci lu ne diggante foncier beeg fonds commun bi 450 milliards yu eurobond yi nomination ñaar fukk ak benn conseiller ca primature yi bàyyiwuñ dara le regard naan kon ba ci nag saisir ay député critique yéen a kaay naan kon na jéer ci réewum Sénégal lan ne saraax mandat naan kon ña ngay contre attaqué lii quotidien naan kon ci impôt domaine lañ ko njëkkee ne fonds commun yi moom na dakk ci réew mi deux minutes pour lire l'essentiel naan kon gëm sa bopp ma ngay xelal BP bu Pastef l'indépendant yéen kaay naan kon bawaluñ leen dara de kàngamu gëm sa bopp yi day dal nañ seen kaw ba maar day taali l'évidence yéen kaay naan kon ña ngay sàkku nag lii ñu ay leeral am ca gannaaw communiqué bi nga xam ne moom Pastef moo ko def le point ak ci naan man cadre gëm sa bopp yi dal nañ ci régime président Diomaye ak kuy daar daar ay leeral ci lii nga xam ne tabb nañ ko niki laaj diggante eurobond yeeg yeneen a yeneen yoo xam ne tey na seen xel ci réew mi Le Quotidien Le Quotidien naan kon fi mu ne opposition bi ña nga yëkk seeni baat ku wax ba daaneel keneen awu la ñoom nag ci biir opposition bi ci boppam ab leadership la ñuy daal di wër yéen kaay bu ma jambal jaan bi naan man diggante gay da Dany ak Thierno Bocoum ni nga xam ne fi ne nag ñoo ne sarax ci gém bi occupé terrain bi waaye itam candidat yi élection présidentielle yi nga xam ne ñu ngi ci commenté yeewooguñu tout cas lu mën a am opposition bii ñuy wax moom président Macky Sall moom waratu cee bokk waratul def politique ci réew mi Walf Quotidien naan kon lan moo tax tekkaayu ñenn ñi seenu noppi lii moom a jaaxal ay kàngamu opposition yoo xam ne fi mu ne noppi nan diggante maali Malick Gakou ak Déthié Fall Mamadou Lamine Diallo Idrissa Seck Khalifa Babacar Sall yéen kaay bi ne ma lan moo waral seenu noppi las yéen kaay nan man en tout cas président Macky Sall man doon jiñ lu ne Benno Bokk Yaakaar doon def ab proposition de loi ngir nag assemblée nationale moom président Macky Sall teg na ca loxo nee na mukk lii bëgguma mu am ci réew mi te du fi am sursoi naan kon en tout cas ay daje am na ci président yu groupe parlementaire yi ngir waxtaanee règlement intérieur bu assemblée nationale Abdou Mbow Ayib Dafe Lamine Thiam laataa 10 heures tambali nañ seen waxtaan gannaaw seen waxtaan wa dem nañ seeti président assemblée nationale Amadou Mame Diop ngir wax ko lan la ñu waxtaan seen biir moom Benno Bokk Yaakaar bëgg règlement intérieur bi lépp mën la daanaka na ci nag may leen yoon ak sañ-sañ boo xam ne dinañ def ab proposition de loi bi weñ loxoog président ba du mën sayal assemblée nationale ñeneen ña nag naan leen déet loolee mën naa xaar di fi mu ne la gën a jàmp moom moo di soppi règlement intérieur bi ba mën a tax nag moom Ousmane Sonko mii mu def déclaration de politique générale am les échos yéene kaay naan man en tout cas assemblée nationale lu ne fa am réunion après réunion njiit yi di waxtaan ngir soppi règlement intérieur ba boo moytuwul ci fan yi ñu jëm dees na nationale l'observateur naan kon corps de contrôle yi nga xam ne ña nga ni fàng laaj ba samp moom moo di ndax coow lu bari lii mën naa tax nag reddition des ñu wax ko ci réewum Sénégal en tout cas diggante rapport bu IGE bu cour des comptes ak IGF e foofee la laaj ci daal di tënku laas yéen kaay naan man professeur Isaac Yankhoba Ndiaye ma ngay wax scandale ci réforme ak évaluation yi nga xam ne am na ci enseignants yi nekk ci science juridique ca CAMES bés bi le jour naan kon waxtu woo it Sénégal Biram Seen naan ca ndorteel ga conseil constitutionnel na génn ci validation parrainage ñu bàyyi nag logiciel ba mu def liggéeyam ndax Sénégal léegi léegi ñu egg ci ñeenti téeméeri parti politique yéeni kaay bi naan maan njaga laa wax nañ ko mu bind nii la mu xalaat ci joyanti gi Vox Populi naan maan en tout cas joyanti am na ci jàngalekat yi Direct News naan maan Moustapha Guirassy moom moo ko def xeex nag li ñu duppee lenteur administrative ñoom directeur d'école di ko ci ba mar day indépendant yéen kaay naan kon coopération économique ak financière bu réewum Sénégal ña ngi koy joyanti ba mar de Italie ay diplomate nag di jaabante ci ministère des finances moom ministre bi Cheikh di dalal ay ambassadeur yu bëri lii lépp na ngir joyanti koomu réewum Sénégal Le Soleil yéen kaay naan kon ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay ferme tabb nan leen it ci programme national boo xam ne ay ndaw la ñuy dajale ci vacances yi jébbal leen ay activité agricole gouvernement gi nag taxawal ko ndaw yi ci luñ jàpp ANIDA yi bu ONCAV bu ANPEJ ak PRODAC ci scout yu Sénégal yi ak itam entreprise agro business yi nga xam ne ñu ngi ci fépp ci réew mi libération yéen kaay naan man terewul de intifada gu mag am na ca centre d'accueil bu Argup ba nekk ca Maroc juróom fukk ak ñett ci ay màngaankatu ay sénégalais fippu nag ba maar de Italie di xaar fanweeri fan ak ñett boobaak léegi ngir ñu andi leen fii ci réew mi baabu seen consul bu Sénégal ca dax la ne yàq nañ bërëb bi ba maar de Italie benn blessé moo fi am dañoo war a xam ne nag centre d'accueil du ay hôtel yéen kaay kaay bi naan man talaata ji rek ñaari téeméer ci xale bàyyeekoo nañ Gàmbi Maroc ci boppam la ñu teer ñeent fukk juróom benn ay sénégalais lañu ñaar ci jigéen bokk nañ ci ñaar ci mineur bokk ci booba ay sénégalais yi teer nañ ci Espagne juróom ñeent fukk lañu xale bu jigéen bu am ñaari at bu ca nekkoon ak xale bu góor bu am ñaar fukk ci ay at faatu nañ ca sandarme it fexe nañ ba ab départ bu waroon am ca mbooro ñu gàntal ko Le Soleil yéene kaay naan man ca Jurbel soxna yi nga xam ne dañoo wann lor day ña ngay dund jaxan na ma xam ne maar day taali le point yéen kaay naan man mouvement Bambey en avant banga nga tàmbalee samp yaakaar ci ndaw yi moom daam ngoom ma ko jiite yaatal ay structure am diggante ouvrier yeeg jàngalekat yi commerçant yeeg sàmm yi képp koo xam ni nekk na ca département ba ña nga roñ roñu jëmale ca mouvement ba mouvement ba nag di leen jébbal offre politique bu yees woo ci ab alternance générationnelle ci boppu mairie bu Bambey loole nag ñu bëgg ko ci élection yi nga xam ne war nañ cee soobu Bambey nag ay doomam ci boppam war koo gérer diggante xaritoo égoïsme goo xam ne ña ngi ko nemmeeku ca dëkk ba loolu lépp daal di fay jeex waa Bambey ci boppam mën a jëriñoo seenu Bambey turbine yéen kaay naan man lo ci man ci dégg téeméeri at yi nga xam ne ña ngay màggal ñibbisi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ca géej ga moom Serigne Mountakha Mbacké ma nga mobiliser Baye Fall yi ngir bëccëg goo xam ne zigru laa dong lañ koy jagleel ak lu mën